Ndeysaan xale yaa ngi noonu avertissement 2 pour Gambie ah ñu ngi noonu arbitre bi sifflé na Ndeysaan Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture Ndeysaan jaar grand Ndeysaan rouge Gambie bleu ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan ñu noonu ba tey ci compétition bi ndeysaan ñu ngi noonu ci bi Sénégal jël na tànk ba Sénégal jël na tànk ba mbaadu daa nar a ñàkk bañ na xale ba bañ na mbëru Gambie yi dañoo mën a bëre ay ndaanaan lañ dañoo mën a bëre ay ndaanaan lañ. Ndeysaan Sénégal Gambie. arbitre bi sifflé waat na. temps ba jeex na. arbitre bi nga waaj a sifflé. nee nañ pare nañ. Gambie ceinture bleue Sénégal rouge ndaysaan bi mooy troisième combat ci compétition bi par équipe la ñu toll ñaari ndam ci kaw Gambie Gambie amagul benn ndam bi mooy troisième combat bi ñu xool ba xam Sénégal day gagné ndaysaan wala déet ñu ngi noonu ndaysaan joueur yaa ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan noonu di jàpp ndenge ñente nañ ku ne di déglu sa moroom diggante Sénégal ak Gambie ndeysaan may nuyu Gambia yëpp wala suñu mbokk Gambien yëpp ak Gambien yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar la yoo xamante ne jël na tànk ba bañ na Sénégal Gambie ndeysaan Sénégal Gambie ñu ngi noonu compétition ñu nga noonu atte nañu nañu leen avertissement disqualifié nañ ko ndaysaan ndaysaan Sénégal jël na